التيسير مع الأبرار ñëwati si édition 2024 Magal Touba 2024 ñun waa ndaw Rabitatu bi Ussuri si Milano. waaw tey nag commission approvisionnement tey ñoo leen berneel li nga xam ne mooy maanaam euh, mbégte bi bis mbégte bi te saa su ne rek innovation yoo xam ne lépp rek ngir jaam yi lépp rek ngir bëggal doomu aadama yi nga xam ne ñoo ñëw si Magal Touba bak borom Touba. Nusuri wa minal Maam Jaara yow nag noo tudd. Maada Gueye. ban commission nga bokk. Euh, ñu ñoo bokk approvisionnement. ñooy commission approvisionnement. tey nag loo leen ñu andil ci bis bi. Euh, ñun ñooy gérer ndekki boo leen gisee table bi moo nekk nii euh, ñoo fi indi mini hamburger lañ leen di indil laax yi laaxu soow mini hamburger yi mbur ak thon ak nambe wala fromage ak saucisson ñu indi leen pizzette yi. bu ñu avancé ba ci biir ñu ni leen pizza tey xale yi ku ci bëgg Nutella ñu diwal la kafe euh, yaa ngi fi meew yaa ngi fi café latte yi ku bëgg ak côté bële moo ñu ñuy servir jus yi. salaamaaleykum wa rahmatulah waa mbokk talibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey ñoo ngi fi ak. ñu ngi lay dalal ziar soxna si. tur bi naka la. Massata Ndiaye ndongol ndongo yi. Touba Milan. ban commission nga bokk. Euh, ahlu tey nan ngeen waajal bis bi loo leen def préparer bis bi. waaw yaa booy bis bi comme ñoo ngi ko préparé comme daanaka ni ko doon préparé saa su nekk rek ci jamonoy màggalu Touba ak euh, ziar Sëñ Maamor ak Gàmmu ñett yooyu moom ñoo bokk na des programme euh, maanaam bis bi comme ni koy programme dañ ko daan waajal ni ko def waa Allou Café waa Kër Maam si Issa Dieng euh, ay jamono dafa am suñu jëriñ ji fi nekkoon ku ñuy wax suñ Talla Jonn moom moo daan organiser mooy suñu jëriñ ñun wax ba léegi mooy suñu jëriñ dem na Sénégal mooy suñu jëriñ ba léegi. moom jamono sëñ maam Mor da daan defar sëñ Mourtala la maa ngi koy jégalu yàlla yàlla dokk leeram yërmande ak jégal da daan defar kafe këram di ko indi ci ndaje mi ba yàgg muy law ji law ba ñu def lu ko ahlu café mu doon lu mag loo xam ne ñun ñëpp ñoo koy seq ñuy dem di ko laaj ci daayira bi dem ba yàgg ñu seet laaj googu mën naa ñàkk waa kër maam si Issa Dieng jël benn décision boo xam décision ferme la chaque màggalu Touba ñooy seet suñu organiser rek ñun ba ma def lu jëm ci café euh, meew ataaya vas lépp nag ñu def ko suñu décision boobu nga xam ne duñu laaj bitse ñun ba léegi moom lañuy def duñ mus duñ mus a laaj bitse fas ñu laaj bitse incha allah màggalu ren gi nag yàlla dafa dogal ñii euh, lañ ko tëddee maanaam af ah, café jënd nañ toll ci ñaar fukki kilo ak juróom bëggan ko ci ndax ren dañoo wàññi café gi ndax jamonoy tàngaay la te temps bi yaatoowul na ndax màggal gi fanaanul moo tax ñu wàññi ci lu bëree bëri ñaar fukki kilo ak café ak juróom lañ jëndagun lañ ci jënd warga jënd nañ ci 5 kilos was eh, jëndal nañ ci lu mat dix paquets yoo xamante ne paquet bu nekk maanaam ñaari paquet yu daal mën naa def trente litres ndox ci was eh, foofu daal lañ tollagoon ci yooy am nag ñeneen ñaari am na ñeneen ñaari am na yeneen murid yoo xamante ni defar nañ café seen kër indaale ñu boole ko ci programme bi ak ataay it am nañ ci ñaari vingt litres quarante yoo yoo xamante ci programme foori programme lay ñëw chaque année bu ko day chaque année benn Baye Fall Ngom chaque année moo koy barkeeloo Euh, foofu daal lañ tollagun ci programme boobu xam naa nag dina am yeneen ci dolleeku waaye yooyu du lu neex calcul ndax yu ñëw ndànk-ndànk la ak ay barkeel ak yooyu mhm. mais itam comme ça noonu dañ naa def meew bi ndax na te xéwal yi allah dañu bañ mu yàqu xam naa ñaari mbana meer lañ fas yéene def ñaari 30 muy 60 litres 60 litres moom lañ fas yéene dañ koy wàññi moom itam ndax temps bi gàtt na te dafa jamono tàngaay la. ndaw yi raabitatu lu café gi. tey nag ndaw yi 18 saf ndaw yi raabitatu bi ci café bi nan la ñu organiser waaw ndaw ñi de tey ji moom farlu nañ lool takk nañ laxasaay timit góorgóor nañ trop si liggéey bi def na nañ ko daan defee mën naa sax tey yokk nañ lool nag yokku nañ lool si liggéey bi jàmbaar nañ liggéey bi. ñëw ñu fekk nañ fi suñuy waajur ñu fekk leen si liggéey bi ñu ñëw jàpp ànd ak ñoom si liggéey bi loolu moo fi jot a kii kay jërëjëf waay Sëñ Fallou kàddu yi am na solo lool jërëjëf waay. Hmm, waaw kon asalaamaaleykum ñoo ngi jël si waat rek fi ñu tàmbalee liggéey bi dañu xaw a waaye moo war na jiitu liggéey bi dañ ko ànd ak suñuy mag di bàyyi ci ñenn ji di jaay ci ñenn ñi kon buñ ci tuddee sëñ Mbaye Gueye Lekko ak sëñ Mor Diop ak Baye Talla Lo ak euh, sëñ Sidi njaay ñoo ñoo suñu mag ci liggéey bi fi ne boo xoolee sax ñoom ñoo toog seere ci yi daanaka ñun dañu toog di superviser rek ñoom fàllu xale yi ñoo yor liggéey bi ñoom tam seen liggéey taxawaay bi rafet na mag ñi tam wax dëgg yàlla mag ñi loo xam ne mag ñi mag ñu jar a bëgg naa xale suñu ginnaaw roy mag ñi ndax liggéey bi toll na foo xamante nii ñun néew nañ ci doole néew nañ ci doole gi moo di eh, néew nañ doole mais suñu kattan bareegul bareetul jom jin aman mi ngi bëgg gaa ngi fi léegi nag xale yi xam ne ñoo toll ci seen digg doole nag dañu war a ñëw laxasaayu jàpp ci liggéey bi position bi ñu taxawoon ñun ñoom ñu taxaw ci position boobu ba dara laal suuf te am naa yaakaar ci ñoom it ndax seen taxawaay seen taxawaay rafet na seen pëstëf rafet na bëgg gaa ngi ci ñoom léegi nag may ñaan mag ñi tam ñu yaatal leen ñoom itam yaatal xale yooyu ñu ñëw mën a jàpp ci liggéey bi mën a imposé génn seen xam-xam ak seen xalaat ñu boole ñun liñ leen jox ñu ànd liggéey loolu bëgg nañ ko ndax dëgg yàlla xay jàmbaar lañ trop trop wax dëgg yàlla may ñaan mag ñi yaatal tuuti xale rek may leen espace ñoom itam ñu indi seen xalaat ak seen pëstëf seen bëgg-bëgg ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jërë jaajëfal ñëpp wax dëgg yàlla sant nañu dem seen taxawaay seen liggéey rafet na macha allah jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna si noo def. maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax yow nag. alhamdulilah maa si jàmm bu baax tur bi naka la. man la Maguette Diagne. ci ban commission nga bokk. maa bokk si commission area bambini. te dañoo bëggoon a xam nan ngeen préparé bis bi ak lan ngeen def maanaam seen i préparatifs yi ak nan ngeen gisee bis bi daal. d' accord allora ñun waa Aria Bambini euh, ñu ngi man nga man ci commis ci parti bi ma bokk si Aria Bambini mooy euh, parti euh, accoglienza bi maanaam ñun dañu jël xale yi enregistré leen ba nga xamante ni bu ñu duggee si biir bu ñuy génn dinañ mën a xam dinañ mën a xayma ñaata xale ñoo fi nekk bare pare xam leen xàmmee leen xam ni ñoom kat ci Aria Bambini la ñu bokk bu ñuy génn tamit parents yi bu ñu leen di jël si dinañ xam ni du ñu nekk suñu suñu sotto la nostra responsabilità et organisation bi ñun ci biir dañuy def ay activité ak ñoom di jàng ñoom alquran di jokkaare ak ñoom ay jokka jokk yoo xamante ne dina ubbi seen xel te surtout tamit dina leen euh, permettre ñu xam suñu culture ak euh, nan mooy culture sénégalaise en général. lan ngeen def nag pour waajal bis bi préparatifs yi. allora euh, ah abbiamo fatto delle innanzitutto abbiamo eh fatto delle riunioni yoo xamante ni ci lañ xool. suñu équipe nan lañ koy formé wee ba ku nekk nga xam sa place bi nga xam te ne moom ngay gérer ci biir euh, commission area bambini in euh, um, ba ci ci biir loolu tamit si la si lañ defaree euh, benn genre site mini site boo xamante ne dañ ci mën a registrer tuuti bambini si biir ñu organiser def ay activité am benn oustaz boo xamante ne mooy jàngal xale yi alxuraan am ñeneen ñoo xam te ne ñoom ñooy gérer affaire activité yi am ñoo xamante ne ñoo leen di accompagnare in bagno e cioè così con ñoo xamante ne tamit ñooy gérer sicurezza dei bambini quindi è così che abbiamo organizzato le ñoo ngi leen ñoo ngi leen remercier bu baax a baax ci kàddu yi am na solo lool macha allah. asalaamaaleykum mbokk talibe yi tey ñoo ngi fii ci area bimbi bi xam naa ñu intervistare ay xale rek pour xool nan la ñuy trovare area bimbi bi daal come ti chiami? Fadal. E te come ti chiami? Fatima. Quanti anni hai? 9. Tu quanti anni hai? oggi siete qua nell'area bimbi, cosa, state facendo? Quali attività vi hanno colpito di più? Vi state divertendo? Io mi sto divertendo molto. Quale attività hai trovato più interessante? Ehm, giocare con i palloncini. Te invece ti stai divertendo? Certo, un botto. Cosa vi stanno facendo fare? Disegnare, giocare. coi palloncini. E quale attività ti è piaciuta di più adesso? I palloncini. Ma sapete in che festa siamo? Che festa è? Bravo, te invece sai che festa è? E sapete perché si festeggia? Eh, più o meno. Va bene, grazie mille ragazzi, buon divertimento allora. Assalamu alaikum, sëñ bi noo def. salaam soxna Amina ñu ngi ziar bu baax ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. bi naka la. Xaadim ci ban commission nga bokk. Eh, commission Aria Bimbi. dañoo bëggoon a xam tey ci Aria Bimbi bi ban mooy sa rôle ak nan ngeen eh, organiser bis bi nan ngeen gisee bis bi daal. Eh, sama role ci Aria Bimbi wàllum. mën nañu wàllum culte nga xamante ne dañuy jàngal xale yi euh, lu jëm seen wàllu diine euh, lu jëm si xamal leen kan mooy yàlla euh, kenn suñu borom bi xamal leen ne suñu borom kenn la dañ ko war a kennal xamal leen kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa xamal leen in général xamal leen l'islam buñ si jógee tamit dinañ dikk ak ñoom si li waral li waral seen teewaay si bés bi te mooy màggal bi xamal leen tamit kan mooy Serigne Touba ak lan moo nekkoon mission moom ak euh, ay jàngaleem waaw loolu daal mooy sama mission si Arya bi xale yi nag lu ko ci xam naa loolu programme boobu nag xam naa bu ñu jullee bu ñu jullee tisbaar ba pare lañ ko bëgg tàmbali mais fu mu toll nii xale yi dañoo nekk di jokkaare ñu bàyyi leen ñuy foo euh, divertir um po léegi nag xam naa bu ñu jullee tisbaar ba pare lañu bëgg tàmbali programme boobu noonu et euh, mën nga ñu wax man maanaam ban genre jeu wala ban genre activité ngeen programmé pour jàngal xale yi ci diine euh, jeu jeu jeu bu ñuy def nii wala boo xamante ne dañ ko programme si parce que instant yi am na télé boo xamante ne benn skermata boo xamante ne moom la ñuy lañ moom la ñuy moom la ñuy génnee pour pour xale yi di mën di gis li nga xamante ne moom la ñuy expliqué euh, li ñu leen di si wàllum yàlla am na am na benn file boo xamante ne moom la ñu préparé euh, nga xamante ne li leen di wax in modo si anam gi mu gi mu gi mu gën a yombee parce que da ngay bàyyi xel ni ci biir xale yi am na si ñoo xam ne ay ñeenti at la ñu am ba ay fukkiyaat kon da ngay da ngay bàyyi xel ne xale bi nga xamante ne dafa ndaw am quatre ans boo koy jàngal loolu dafa laaj benn pédagogie jarul euh, di utiliser yenn baat yu xóot yi waaye dañuy utiliser waale skermata bi ngir li leen di jàngal ñu ñu ñu ñu jàkkaarloog moom. ñu fi ñu bëgg njëkk tàmbalee mooy euh, récitation coranique dañoo bëgg njëkk euh, xool xale yi fan lañ toll ci wàllum alqur alquran euh, ndax am na saar yu ñu mokkal ndax am na fu ñuy jàngeek yooyu noonu après nag si saar yu ñu jukki si benn saar mooy suratul ixlaas waaye wanti ñu jukki si suratul ixlaas nga xamante ne moom wàllum tawxid lay jàngale. Euh, wàllum wàllum kenn suñ ni suñu borom nekkee kenn ne amul nday amul baay amul amul nawle waaw moo tax ñu jukki woon saar bu am solo la moo tax ñu jukki woon ko ngir leeral ko xale yi nga xamante ne euh, dafa nekk loo xamante ne mënut a ñàkk si jullit bi moo tax ñu tàmbalee ñu jukki woon saar bi ngir ngir ngir ngir xamal leen maanaa saar bi waaw xamal leen maanaam unicità di yoo mooy mooy kenn ku suñu borom nan la suñu borom nekkee kenn nga xam ne moom kese la ñu war a jaamu war ko bokkaaleeg dara xamal leen tamit lan moo waral suñu borom bind andi ñu si kaw suuf loolu xam naa euh, question la boo xamante ne xale yi war nañ koo xam xam ne si euh, kaw suuf yi suñu borom dañu fee andi ngir ñu jaamu ko euh, wéetal ko bañ ko bokkaaleeg dara gannaaw loolu tamit xamal leen euh, xamal leen euh, yonent yi nga xamante ne euh, moom la suñu borom moom la suñu borom yónni woon ñu tolloon si cent vingt quatre mille mooy quanti erano ñaata lañu woon ak kan moo si kan moo si suñu yonent ak fan la juddoog ak li nga xamante ne moo jëm si histoire am daal ak lan moo nekkoon mission wu cent vingt quatre mille yi parce que boo xoolee ñoom ñëpp ñoo bokk benn mission bi ak lu ñuy bari bari ñoom ñëpp ñoo bokkoon benn mission bi mhm. xamal leen tamit euh, nit ki bu bëggee bu bëggee dugg ci lislaam nan lay duggee ci lislaam xamal leen ni nit ki dee seede ni amul benn buur bu ñu war a jaamu seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom euh, euh, moom la suñu borom yónni bu ko defee tamit après bëggoon bëgg nañ dugg ci ci ci ci ci ci kii malaayika yi xamal leen fukki malaayika yi nga xamante ne euh, xam seeni tour comme niko ko sëñ Tuubaa waxee si téere yi mënta ñàkk di ko dalee si Jibril Mikail Israfil Azrail euh, Ridwan Malik euh, mooy fukki malaayika yooyu daal xamal leen malaayika bu nekk ban mission la amee woon waaw ban mission la amee woon bu ko defee nag après ñu jàll si ki nga xamante ne moo waral bés mi mooy Serigne Touba euh, xamal leen lan moo waral bésu maag bés bés bésu màggal bii nii ak euh, lan moo nekkoon tamit mission Serigne Touba nga xam ne mission yooyu yonente ya amee woon moo nekkoon mission Serigne Touba donte turu nubu nubu nubu watu bi moo fi nekkul maanaam gratu yonent bi waaye benn mission bi la amoon mooy mooy la yonente ya doon doon jàngale euh, te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngale moom la dikkoon ngir eh, ngir ngir yeesal yeesal jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ak lan moo waral màggal bi eh, ak ak ak lépp lu si aju daal lu jëm si màggal bi ñu explique leen ko loolu moo nekkoon programme programme mu bés bi. asalaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi ziar bu wér a wér tur Adama Diop. ban commission bokk. waaw ñun ñoo ngi nekk ci wàllu séddale eh, bernde yi. ànd ko waa approvisionnement. dañoo bëggoon a xam tey nan ngeen organiser liggéey bi. waaw asalaamaaleykum mbokki taalibe yi xam naa ñu santaat bu baax a baax ci laaj bi nga xamante ni yaa ngi nu koy laaj. waaw maanaam euh, ren moom ni ko daan organiser rek daanaka euh, moom lañ fas yéene organiser waat ren gi euh, fas yéene tàmbale bernde yi comme ni ñu ko tàmbalee bi màggal gi tàmbalee ba si suba ba tey ci wàllu ndékki yi. ginnaaw ndekki fi mu ne nii ñu ngi toll ci wàllu xéewal yi muy wàllu añ ginnaaw bi ne ni woon nag bu ñu julee tisbaar ba noppi ci la ñuy tàmbali wàllu séddale yi si leen war a jublu nii fii nga xamante ni fi leen taxaw nii fi leen war a maanaam tàmbalee séddale yi euh, kon xam naa ne comme niñ ko baaxoo defee rek ren danoo am area bimbi maanaam fi tout temps kii nekk euh, fa leen fas yéene tàmbalee euh, joxe ñami incha allah ndax comme ni ko baaxoo xam xam nga dañuy xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a euh, fragile muy tout tànk yi ak soxna yi euh, door a jublu ci góor yàlla yi kon incha allah añi ñëw nan euh, berne yi moom lépp mën na wàllu dégustation yi incha allah ngoon gi la jëm ndax danoo bëggoon a bàyyi ba añ ba ca kanam bu soobee yàlla wàllu dégustation yeeg yëpp ñu ngi fi waaye bu ngoonee ci la ci lañ koy waaj ci lañ koy séddale réer yi tamit ginnaaw timis incha allah lañ ko bëgg a séddale kon fi mu ne nii daal ci wàllu añ lan toll ñi ngi ngi ci waañ bi ñi ngi séddale bu soobee yàlla ne bëgg noonu koo tàmbale ci aria bimbi jox tuutaa ngi ñu xéwlu ba noppi ñu jublu ci soxna yi euh, door jublu ci góor yàlla yi incha allah yàlla na ko sëñ Tuubaa nangu ful ko ñu yàgg koo fekke yàgg koo taxaw da bu kenn manqué incha allah jërëjëf allahumma amiin yàlla yàlla nangu naan yëpp jërëjëf waay sax na yi ñoo ngi leen di ziar bu wér a wér tur yi naka la man la soxna yaay Babou Ndiaye soxna Mbosa Thiam. man la soxna Ndeye Diop Guèye. ban commission ngeen bokk. ñu ngi bokk ci commission dégustation. dañoo bëggoon a xam tey nan ngeen organiser liggéey bi ci wàllum dégustation bi. waa ñu ngi tàmbalee si dégustation bi mi ngi jëm ci euh, defar nañ ay brochette brochette ginaar moom lañ bëgg def def ay piadina pour indi tuuti innovation defar nañ fataaya defar beñe defar indi defar tante koose daal. macha allah nan ngeen organiser liggéey bi nag. waaw liggéey bi moom dañ ko doon def pooko per pooko ci wàllu bari parce que ñun comme bëriwuñu euh, ay loxo macha allah mais daal ñëpp génn nañ jàpp ci commencé nañu depuis barki démb. waa démb ñu àggale tey tamit ñoo ngi nii di finir ñu si suñu waa daayira ñu ngi nii toog. ok macha allah ñoo ngi lay remercier bu baax soxna Babou. soxna Mbose dañoo bëggoon a xam tey liggéey bi si waañ bi nan la demee. waaw maaleykum salaam soxna Amina maa ngi nuyu ñëpp di ziar di sant euh, soxna jaara yi ma bokkal liggéey bi yëpp dëgg yàlla macha allah ndax depuis barki dem ba léegi ñu ngi ci waañ bi ñu ànd ko ak positif ànd ko ak contentement ànd ko ak euh, mbégte dëgg yàlla ñuy ñaan yàlla rek dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim akale ko alhamdulilahi rabil alamin ndax waañ bi depuis trois jours ñu ngi ci depuis mercredi ba léegi si soxna jaare wax dëgg yàlla jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu nu bokkal ba daayira bi yëpp ma ko ànd ko sama jëwriñ ci sama jëwriñ baabu jëwriñ nday jaw ak ñi nekk sama ginnaaw ñëpp sant nañ ñëpp gërëm ñëpp ñaan yàlla sunu borom nañu fekk at yu bëree bëree bëree bëri may jaajëfal ñëpp nag di kontaan ci lépp ci liggéey beeg lépp daal lu ci waay def rek yàlla na la ko borom màggal gi fay ci barke Seexu Xadim macha allah dëgg yàlla kontaan lool nag ñu sant sunu jëwriñ yëpp ak sunu waa daayira beeg ak waa daayira bu mag beeg ñëpp daal sant nañ ñëpp waaw jërëjëf. jërëjëf soxna Mbose ñoo ngi lay remercier bu baax ci kàddu yi am na solo lool. waaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu wér a wér tur bi naka la. Baye Naar Diba laa tudd. ban commission nga bokk. maa ngi bokk ci jiite transport. ñoo bëggoon a xam tey nan ngeen organiser liggéey bi ci wàllum transport bi. waa liggéey bi moom soxna ngi ci rek comme ni ko doon defee at ci ginnaaw. yàlla defal nañ ci ndox mu sedd nag ñu ngi ciy am ngërëmal sëñ Tuubaa ñu ci ciy dàq euh, leex taalibe ak li taalibe yi bëgg waaw ñu ngi ciy daal yàlla nañ ci sëñ Tuubaa dajante ngërëmam daal waaw ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp yéen ñi ànd ak ñun liggéey bi nag waa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi ziar bu wér a wér tur bi naka la wala ndongali Pape Diagne nekk Touba Monza di jëwriñu organisation si Rabita Touba si la turu boox te dañoo bëggoon a xam nan bi waaw nin ko koy organiser bala maa yegg process si ni ñu koy organiser maa ngi nuyu mbokk yi di ziare mbokki taaliba yëpp di len ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen yéen li si nga xam si mooy bisu tey bi yàlla na ko jullit yëpp yàgg a te lépp lu si sàkku si yiw yàlla suñu borom bi nugul na ko si barke Cheikhul Khadim di ñaan taaliba yëpp am jàmm waa bis bi nag ni ñu ko liggéeyee ni ñu ko waajalee comme ni ñu daan waajalee yeneen bisi rek man naa wax ni mun euh, nekkuñu gan ci bés bi parce que bés yi yàgg nañ koo taxaw si anam bu nekk nag kon ni ñu ko waajalee mooy ni ngeen gisee mbooloo bi sama ginnaaw démb euh, une semaine si ginnaaw doon nañu récupérer bagage yëpp yoo xam si mooy jëm si wàllu màggal gi lépp loo xam ne si màggal gi yittewoo na ko si matériel ci une semaine récupéré na yëpp ba na dajale ko si benn place bi màggal gi desee ñaari fan fu nekk foofu bagage dem war a dem yóbbu nañ ko fa waaw tey jii nag bi ñu xëyee nekk nañ si màggal gi wax dëgg yàlla murid yëpp jàpp nañ si liggéey bi taxaw nañ si comme ni naan taxawoo xanaa di sant mbokki taalibe yi rek di leen ñaanal bu baax suñu borom bi gën leen a dolli kàttan ku wér ba nu gën a mën a jekku liggéey bi parce que organiser yombul waaye bu nu booloo ñëpp bokk nekk benn rek commission yëpp jaxasoo nekk benn rek li ñu bëgg si liggéey bi mën nañ ko am kon xam naa ni loolu ñoo ngi si tànk yi te incha allahu rabi li si sunu kanam noonu lay doxee bisimilah maa ngi lay delloo kàddu ci wàllum salle bi nag nan ngeen organiser espace nan ngeen ko séddalee. waaw xam naa si wàllu salle bi rek ni ngeen gisee image yi si ginnaaw mu nekk barab boo xam ne si lépp loo xam ne si defar nañ ko rek euh, si biir salle bi lañ ko daggee muy espace aria bambini yoo xam si moom ngeen féete ni si sama loxo càmmoñ si sama ginnaaw fële euh, soxna yi ñoo nekk si wàllu dégustation si sama loxo euh, ndeyjoor. góor ñi nekk fi lépp daal maanaam lépp loo xam si section la commission yi nga xam ne si bokk na liggéey bi lépp si biir salle bi lañ leen découpé seen i euh, euh, seen poste yi nga xam ne si leen installé seen i bagage wax dëgg yàlla bu nu sañoo am lu gën a yaatu ku nekk ñu teg la foo xam te fu yaatu la mais ginnaaw yàlla dogal na lépp benn barab la danoo def la tout maanaam ku nekk fa nga euh, xam si fa nga nekk yaag sa commission rek ñu fexe ba aménager la ko defal la ko ba nga gis sa bopp ci liggéey bi parce que boo demee si euh, fii nga xam si mooy Arya Bimbi yoo xam si daaw nañ ko taxawal wax dëgg yàlla ñu am si loo xam ne si ñëpp kontaan na si ñu nag ren nañ ko gën a yaatal parce que li nu amoon daaw xatoon na lool waaye ren bu ngeen fa duggee li gis barab na lool xale yi fi mu ne macha allah ñoo ngay fo ñoo ngay def seen lépp daal ñoo ngi leen di jàngal seen diine ñoo ngi leen di jox ñuy xewlu xam naa daal bu fi jógee moom dinañu yàkkante màggal gi ñëwaat parce que loolu rek lañ soxla si liggéey bi xale yi ñëw bu ñu ñëwee gis napp liggéey bi bu ñu fi jógee bu ëllëgee dina tax naan màggal gi kañ lay ñëwaat ñuy fàttali màggal gi waaw loolu am na solo baax kon nanu gën a jàppale nga xam ci ndaw ñi nga xam ci si juróomi at la ñu jëm fukki at ñu tàggat leen si liggéey bi mooy lii rek wutal leen ay barab yoo xam ne si ci la ñuy nekk di def seen i yitte waa am ñu leen di ah, ah, am ñoo xam si ñoo leen di taxaw wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet nag ku mel ni soxna Xadi waa ñoo ngi koy jaajëfal bu baax wax dëgg yàlla si li nga xam si yitte bi nga xam si jox na ko ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp wax dëgg yàlla sant nañu bu baax daal bàyyi wuñu kenn alhamdulilah ñoo ngi leen ziare woon baax di leen tuubal jërëjëf sëñ bi ñoo ngi lay remercier bu baax asalaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu wér a bi naka la waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxala wa barakaatu woon man la Sadio wan ci ban commission nga bokk. li ngay wax dégguma ko de. ci ban commission nga bokk. ah approvisionnement laa bokk. dañoo bëggoon a xam tey nan ngeen organiser liggéey bi ci wàllum approvisionnement. waaw ñun de booy xool lu war a mat une semaine a ngi nii ñu ngi ci liggéey bi daanaka foo xam ne yëg nañ xam ne buñ fa demee danañ fa am lu xiiwale. toppatoo nañu ko yàlla nag def ñoo dimbale ñu ànd ak sunu jëwriñ jëwriñ Wilane mu jël lépp teg ko ci sunu loxo daanaka moom kenn ku ci nekk commission bi ñu nekk dafa am façon bu nekk am na xale boo xam ne tout tànk moom lañ jël teg ca kaw bu ko defee moom muy saytu la muy war a say bu fekkee boisson bi am na ñu ca war a dox su fekkee affaire fur am na ñu ca war a dox bu fekkee rek même kuddu yi ñuy lekk rek am na ñoo xam ne ñoom ñoo yor commission boobu daanaka kenn ku ci nekk sag matt nga yor boo xam ne matt googu jëwriñ dañ lay soññu rek waaye daanaka yàlla def na jàmm ba xale yi kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla tuwaar kàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan sunu borom dimbali ñu ba yoon wi ñu aw ñu bañ koo wàcc. asalaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu wér a wér tur bi naka la. Uh, Ibrahima Ndiaye. ci ban commission nga bokk. waaw ñun ñoo jiite mboolem li nga xam ne moo aju ci wàllu liggéey bi daal. muy comité bi ak comité coordonnement bi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu liggéey bi lépp. dañoo bëggoon a xam tey nan ngeen organiser bis bi. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di sant bu baax ci taxawaay bi ak it ji. màggal gi nag moom nin ko taxawal rek mooy ginnaaw bi nga xam ne ne Rabitul Wasilatu Rubuh taxawal nag commission boo xam ne moo tudd coordonnement. nga xam ne mbooleem lépp lu aju ci wàllu liggéey bi ñoom ñoo koy taxawoo bi màggal gi ñëw itam ñu wutaat beneen commission boo xam ne moom la ñu tuddee waajal màggal nga xam ne bépp commission boo xam ne rek am na ci liggéey bi am na ku la fa teewal nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu aju ci liggéey bi loolu nag lu teel a waajal la ci màggal gi moo war a réunion yi nga xam ne ñu ko doon amal ak waxtaan yi ak tënk yi moo tax bi màggal gi ñëwee mën naa ne liggéey bi yomb na lool ndax fekk na kenn ku ne tàggatu ci la nga xam ne moom lañ lay liggéeyloo ba bi mu agsi daa woyof ci yow ba li ko sëñ bi digle woon rek ñu sant la ko ci yàlla loolu moo tax man na ne li ci ëpp lépp daal teel naa yemb. ok jërëjëf ñoo ngi lay remercier bu baax ci kàddu yi am na solo lool macha allah jërëjëf waay. asalaamaaleykum oggi siamo qui con Mariama. Da, di dove è lei? Io abito ad Arosio in provincia di Como. È venuta qua con qualcuno oggi? sono venuta con mio marito che è qua da gennaio, dal Senegal, è il suo primo magal in Italia, lontano da Tuba. E come vi siete trovati oggi? Benissimo, c'è un'accoglienza, la classica teranga che si trova in Senegal. Cosa l'ha colpita di più di questa giornata oggi? la gente che c'è, i sorrisi che ci sono e la cordialità. Noi la ringraziamo per la sua presenza, grazie mille. Oggi siamo qui con Maria. Di dov'è lei? Io sono qua di Erba. È venuta qua con qualcuno oggi? con i miei colleghi di lavoro. E come si è trovata oggi? Benissimo, la prima volta per me partecipare a una festa della loro, loro religione, posso dire. No, benissimo, sono trovata benissimo. Qual è la cosa che l'ha colpita di più oggi? I vestiti, cioè mi sono innamorata dei vestiti, infatti ho fatto un sacco di foto per i vestiti di tutte le donne, anche delle bambine, bellissimo. E le hanno spiegato più o meno l'evento, perché... Sì, sì, ho, assistito anche al momento della preghiera, di due preghiere, e, no, è molto bello, cioè, vedere un'altra religione diversa della mia, però è molto, cioè il rispetto innanzitutto. A noi fa piacere averla qui oggi con noi, grazie mille, grazie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey ñoo ngi fii ci màggalu Herba bi 2024 ñoo ngi fi ak suñu mbokk tubaab yi ñoom ñoo ngi ci ci la ressource bi lañ mbokk léegi xam naa ñoo ñoo ngi leen di laaj ay petit question ci màggal bi nan lañ gisee màggal bi et tout ça buonasera oggi siamo qui con Antonio okay. lei di dov'è? Mariano Comense okay. è venuto oggi a questo evento per cosa? per far servizio con l'ambulanza se nel caso qualcuno non si sentiva bene e come si è trovato oggi? Bene, ringraziando il Signore nessuno è stato male. Bene. Qual è la cosa che l'ha più colpita di questo evento? Che c'è tanta gente, andate tutti d'amore d'accordo. La, ringrazio, la ringrazio, arrivederci. Ñoo fi ak Moussa Sarr. foo jógee Moussa. maa ngi jógee ba côté Sondrio quoi ñëw fii si météo non repère arrivare quoi. ban daayira nga bokk. maa ngi bokk ci benn daayira bu naan fii nii. tey nag noo gisee màggal bi. ah neex na moom neex na trop sax lu baax la tamit ci ñun ndaw ñu nekk fii tamit dañu éduquer pour suñu diine ñun ñu mënta dem yi Sénégal ñu mën koy defee fii nii ci Italie dina dina dina du nekk dina nekk suñu bu baax fii nii ci Italie. yaa ngi jàpp si liggéey bi. maa ngi si jàpp bu baax sànq ba léegi ñoo ngi ci for mbalit meeg affaire yooyu noonu noonu mais sant bi ñoo ngi dal lu tuuti. ok ñoo ngi lay remercier bu baax Moussa jërëjëf waay. asalaamaaleykum soxna si ñoo ngi lay ziar bu wér a bi naka la. man la Awa. foo jógee Sest San Giovanni si ban commission nga bokk approvisionnement tey nag nan nga gisee màggal bi macha allah liggéey bi rafet na góorgóorlu nañ si te yàlla na yokk yàlla na ko fete ay at yat incha allah ok jërëjëf waay soxna si ñoo leen remercié bu baax a baax jërëjëf waay asalaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu wér a wér tur bi naka la ñoo ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax tur bi maam Ibrahima Ndiaye la maam Ibrahima Ndiaye foo jógee maa ngi jógee Monza tey nag nan nga gisee màggal bi organisation bi et tout ça. màggal gi moom ni ko gisee sant nañu ginnaaw ban sant yàlla dellu jaajëfal Seexul Xadim Xaadimal Mustafa mi nga xam ne moo waral lépp ndax bis bii moom day bis bo kawe lool si ñun ni ma koy faral di waxee rek te ñaare sax ñu bari di wax ne waxi dof ngay wax waaye xam naa nag loolu mooy li wér ndax euh, damay faral di wax ne lépp loo fi gis lu mu kawe kawe wala lu mu màgg màgg lu mu sell sell màggal gee ko gën a kawe. foofu nag fi ma ko teg mooy damaa gis ne Seexul Xaddim tëliwu dara waaye bu buñ jàppoon ne tëli na dara da wax dañuy wax ne màggal gi la na màggal gi rek la sàkku ndimbal moom la wootee nit ñi ñëw jàppale ko si maanaam seexam si woo musee wootee ndimbal doomam yi musee wootee ndimbal xasida yi musee wootee ndimbal màggal gi rek la wax ne bu dikkatee da ngay mën si sant la yàlla kon damay jàpp ne màggal gi gën a kawe lépp lépp ndax benn avant muy dem si tukki bi li ne wooyee ay doom wala li ne wooy ay cheikh mooy taalib yi ko toppoon wala wala wala ay xasida am na yu mu si jotoon def ma jàpp na bu desoon si tukki bi loola mu jotoonam loola day day day nax saay la nga xam ne ginnaawam la ko ginnaaw tukki bi boobaa du am te tukki bi mooy màggal gi kon daal màggal gee gën a kawe lépp lépp lépp lépp lépp luñ si gis murit bu ne daal war nay def yitteem jël màggal gi teg si kanamam te waajal te ma tàmbali ko waajal tey jii su tey bi waajal ko bu déwén màggal yëpp mu koy defee noonu ndax loolu rek lañ fi am amuñu ko dul Seexul Xadim te Seexul Xadim lépp lu ma lu ma am mu si tukki bi te bi nag jaar na yoon xéewal yi nga xam ne moom lañ digle woon tamit gis naa ne lépp mën na kon daal santati na ni yàlla bu baax a baax a baax doole gërëm Seexul Xadim bu a baax a baax jërëjëf macha bu baax ci kàddu yi am na solo lool macha allah. salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu wér a wér tur bi nan la. jëwriñ Serigne Saliou Sène ñoo ngi lay ziar foo jóge euh, maa ngi jóge Monza Brian Sam euh, ñoo ngi sant sëriñ bi bu baax euh, di jëwriñu sëriñ bi fii ci Lombardie bi waa kër sëriñ Béthio. macha allah dañoo bëggoon a laaj tey nan nga gisee màggal bi organisation bi wàllum xéewal yi et tout muy mel ni li ñu jiit sunuy kaddu mooy jërëjëfati sëriñ saaliw jërëjëfaat sëriñ Saliou sëriñ bi. ñoo ngi ñaan yërmandeem ji gën saw ci suñu kaw di santaat bu baax ci introduction bi nga ma defal ngir ma wax ci bis bi nga xamante ni tey ñun murit lu nu am moo nu ko may nu nu mel mooma fu nu àggit mooma muy bisub sëriñ Tuubaa bii nga xamante ni mooy 18 safar sëriñ bi daldi ciy woo képp koo xamante ni bisam bii sa bis la ñu bu agsee nañu ko ci sant la yàlla kat nu waajal ko ba nu jugee ci màggalu daaw ba agsi ci tey jii fas yéene sant la tubaab bisam bi sant googee ñu koy sant nag tey moo waral mbooleem séen ab taalibeem ak kudul taalibeem ndaje fi nuy sant Serigne bi di ko santale yàlla ci bisam bi ren di bernde togg ay ñam yu neex te saf ànd ak i doom di ko séddale te du am xajj ak seen loole nag kënu yóbbu ci am àgg ci xam-xam boobee mooy sëriñ bi mooy sëriñ Béthio mënu yóbbu ci nu xam ne dëkkate màggalu sëriñ Tuubaa gii àgg na foo xamante ni foo ko takk weesu foo ko takku rek weesu na ko ndax kenn mënu jot dayo ba mu tax ñu daje fi fas yéene wane suñu mbëg jàng suñu alquran jàng suñuy xasida ren di bernde sant sëriñ bi te fas yéene ko waajalaat suba lañ koy tàmbaliwaat jëmee déwén ndax màggal gi foo ko takk rek mënoo koo dab sant nañu nag lool ci bis bi ndax lépp doy na lépp mat na nii nu ko fas defee fii boo duggee ci biir Europe dëkk boo dem nii la mel ba ci biir Italie foo dem nii nu koy defee fii ci Lombardia Milano bi province di Como gii nga xam te ne jii fa lañ koy defee foo dugg ci biir Italie noonu la demee fépp foo dugg ci biir Europe noonu la demee rawatina nag dëkkam boobee nga xamante ni mooy Sénégal di Touba nu daje fa di ko fa santee te mu ak cant goo xamante ni ñun murit tey rek mooy sunu bisu feet bis bu ñëw lu mu rëy rëy ci ñun mën naa ba àgg ci ñun fii ñu bisu tey bi àgg ñu di ay ndaw mu def nim ñu def melal ñu nim ñu melal bëgg lu baax jub nangoo liggéey nekk ci réewu nasaraan si nga xamante ni ku am ndimbal rek da ngaa wéeru ci sëriñ bu matub sëriñ te ñu wéeru ci sëriñ bu matub sëriñ ba tax kenn du xool ab taalibeem di ko jaawale ak lenn lu dul la mu taq muy sëriñ bi. fonkul màggal ki fonk màggal gi dana ko rawee addina gii ak ëllëg te dana ko rawee fii ci àddina ba mu teg ci bëtam kon ñoo ngi ñaan sëriñ bi dimbali nu ba nu bañ a bokk ci ñi nga xamante dañuy màggal si ñu bokk ci ñi nga xamante dañuy màggal ndax ay catégorie murit dafa am mooy murit bi nga xamante ni sëriñ Tuubaa moo la jàpp ak murit bu nga xamante ni yaa jàpp sëriñ bi. ak murit bi nga xamante ni yow sa lépp dafa jeex takk ci sëriñ bi yooyee murit nag ku si nekk bu màggal jotee si nga koy ràññee si ngay ràññee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lan moo di murit bi nga xamante ni sëriñ bi rek lay moo ko ñor moom rek lay dundee mooy yoru melokaan woo xamante ni bu bis bi ñëwee da ngay xam ni kii wax dëgg fa sëriñ Tuubaa da ciy def lu mën ak lu mu mënul dana ko màggal te du bokk ci ñiy màggal si dana bernde dana rendi dana defar ay ay ay ay ay ñam yu neex defar yu saf suukar ak i doom kéem lu mu mën dina ko ci def kon loole nag mooy dëgg-dëgg màggal gi bu hubbin aw hadiyaat nga xamante ni sëriñ bi yóbbu nañu ci xam-xam foo xamante ni sant nañu ko ndimbal lim nu defal ak tawféex gu ñu defal ba boo génnee kenn du ñu jaawale ak waa waa waa mbooy gi boo leen ñu jàkk da ngay xam ne ñii nga gis ay murit lañu kon loolee cant la goo xamante ni dañ ko koy sant di ko ñaan dimbalam saa su nekk muy sotteeku suñu kaw ñoo ngi ñaan fii képp ku fi ñëw aajo joo am yàlla na ko borom màggal gi faju faj tawat bu fi ku fi indi tawat sëriñ bi yàlla na ko saafara ku fi indi yitte ak loo fi mën a indi yàlla na ko sëriñ bi faj saafara ko ci barkeem ci yërmandeem kaddu yi bu buñ ko doon topp bu suba du jeex ndax loo wax ci moom leneen taxaw ne wax ma kon boo koy wax fii ba suba doo fi jóg nii ñu taxawee nii di wax mënis na koo toppee ba suba te loo wax doo ko waxaat te loo wax leneen rek lu baax ñëw taxaw ne danga nga fàtte kon dañu koy daal di yemale fii ak gum te ñaan sëriñ bi mu dooleel ñu doolay poos ba sal wii bu heure bi ne nu mën a jënd loo xamante ni kër sëriñ tubaa lay doon goo xamante ni sëriñ tubaa moo koy moom ba nu koy def foo xamante ni alalu sëriñ bi lay doon nu bañ a wéeratu ci kenn sëriñ bi am mbir boppam fii loo xamante ni murit gi ñoo koy moomal seen bopp loolu moom fas nañ ko ci màggalu ren gii di ñaan tawféex ak taysiir sëriñ bi defal ñu ko di ñaan sunu sang bi yàgg fi lool te di ko ñaan mu yàgg fi lool te gën a wér waaw jërëjëf. salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu wér a wér tur bi naka la. Alaaji Gey. foo jugee. nekk tey nag nan nga gisee màggal bi. tubaarakallahu màggal gi gay wax dëgg yàlla yonte bi képp ku fi ñëw xam ni sëñ Tuubaa amul morom lii moom. jàngoro ne wone màggal gi moom foo dem fu ne nii la boo demee Torino fii la boo demee Venetia foo dem rek nii la waaw day mel ni da naan senegal kenn desu waaw boo demoon Touba danga tey dootutoo wax waaw wax dëgg yàlla yéen sant yàlla rek yàlla nan ko yàlla fekkeloo yàgg koo fekke ci barke Sëñ Touba Mbakke ci barke mboolem kilifa yi ci Sénégal yëpp tabaarakallaahu jërëjëf yow itam. jërëjëf waay sëñ bi sëñ yi nag yéen nan ngeen gisee màggal bi tey. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi tudd Serigne Fatab Sagna nak magal bi ma sant yàlla bu wér sant yàlla bu wér magal bi kay neex na trop nak magal bu mel nii am ko at ba at pour am ko yombul am na ñi nga xamee xaar nañ ko fekkuñu ko yàlla def nit ñi nga xamee am nañ ko fekk nañ ko jàmm ak salaam ñooñu sant yàlla bu wér di ñaan réew bi yëpp mu am jàmm ak salaam ak mbooloo ñi ñëw yëpp ñi tege fekkee magal bi yàlla ñi delloo jàmm ak salaam ak wér bu yaram mu nekk si ñoom ñoom ñëpp ñi nga xamee ñi nekk si suuf yàlla yaram leen yóbbu leen àjjana suuf bi sat si yaram ñoom ñoom ñëpp waa nit yi moom booloo rek moo gën a am solo seen Bamba rek macha allah mooy yàlla mooy lépp moom li mu liggéey kenn xamul li mu tol ñi ñaan jàmm rek mu am si réew bi fii moo di ñi nekk fii bitim réew waaw ñoom seen xalaat yëpp waaw jàmm rek lañu xalaat ak booloo di àndandoo ak jàmm ak salaam ak wér wéram mu nekk suñu diggante ñun ñëpp. macha allah jërëjëf sëñ bi jërëjëf sëñ bi na. trop waaw ki la mu toll. sëñ bi kàddu yi am na solo lool macha allah jërëjëf. tur bi naka la bi naka Mbow. fan nga jóge Milan. tey nag noo gisee màggal bi kon. màggal gi alhamdulilah lépp taw fexe na aw na lépp di jàmm ak daana ñaan yàlla fekk ko ay déwéni déwén rek di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi lool tam ak wér barke Maam Mor Jaara amiin jërëjëf waay soxna si ñoo ngi lay ziar tur bi naka la Anta Ñeng la foo jugee may jugee Milan tey nag nan nga gisee màggal bi ci wàllum organisation bi xéewal yi et tout ça gi neex rek bisu Serigne Touba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek di ñaan yàlla ñu fekkee at yu bare bare bare déwén ñu fekk ko Sénégal incha allah ci barki Cheikhul Khadim. ok jërëjëf Soxna si si ñoo ngi lay tur bi naka la. maa ngi tudd Astou foo jugee. maa ngi Lekko. dañu la gën a laaj tey nan nga gisee màggal bi ci wàllum organisation bi ak xéewal yi. macha allah bu ñu sante yàlla julli Seydina Mohamed sant Cheikhul Khadim yaakaaru tey ak ëllëg wax ni macha allah màggal gi moom. chaque année nii la sëñ bee koy fayal boppam day gën di yokk ren dafa gën taw féexe macha allah organisation kon d'habitude xéewal yi macha lépp lépp lépp kontaan nañ suñu xol sedd na trop yàlla na Cheikhul Khadim fayal ñu leen. jërëjëf soxna si ñoo ngi lay remercier bu baax jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar te ñoo ngi fii ci màggalu Touba 2024 Air ba. léegi ñoo ngi fii ci bureau exposition bi ñu bëggoon a laaj soxna Assu lan lañ préparé pour exposition bi pour kan ngeen ko préparé ak lan ngeen bëggoon a message bi ngeen bëggoon a transmettre daal. ok ñun euh, tey dañaa def loo xam ne màggal bëgguñu mu yem ci ñun kese bëgguñu ñu yem ci murit kese musulman kese loo xam ne même ku xamul ñëwee dina am leer-leer ci histoire Cheikh Ahmadou Bamba. ndax histoire bu am solo la pas seulement sur mais pour ñoom tamit ndax seen partie d'histoire la ndax colonisateurs yi ils étaient français ils étaient européens léegi bëgg nañ loo xam ne euh, dañ ciy boole ñëpp du loo xam ne ñu kese ñoo ko moom ku mën ci ñëw ñu boole ko euh, ci mbir mi teral ko dalal ko may ko espace daal mu mën a xam xam ñu xam ñu lu tax mu waral lii kon nag dañ leen doon expliquer histoire Mouride histoire Cheikh Ahmadou Bamba nan la 18 safar amee yoon nan lañ dem ba indi fii nii di def màggal chaque année ñu koy def lan moo indil ñuy euh, ñuy féete chaque année euh, euh, ñuy féete chaque année exiliation Cheikh Ahmadou Bamba fin d'exiliation ba jërëjëf waay soxna Astu ci présentation bi leer na naañ macha allah jërëjëf waay. ñoo ngi lay ziar. nangu ziar ñoo ngi nangu ziar. ñoo ngi di ci màggal bi ci 18 safar bi di leen ñaan yàlla yàlla ñu fekke waat ko yaat yu bëree bëree bëri. amiin waay tey lan nga ñu andil ci exposition bi. tey nag euh, ni ko soxna Astu waxee rek. Euh, dañu bëggoon expliquer suñu euh, tubaab yi tamit suñu diine. bëggoon leen expliquer euh, ñun nan la ñu Mouride di dundee suñu jour bii nii ak lan moo tax ñu koy dundal tamit bëggoon leen expliquer tamit nan la suñu euh, diine bi di doxee bëggoon leen wax euh, daayira bi suñu daayira nan lañ nan lañ juddoo kan moo ko créer ak lu tax ñu koy dundal a chaque fois doon leen expliquer tamit un peu nan lay nan lay fonctionnaire dañu ñoo ni dinañ def guddi àjjuma tamit di dundal dimanche yi chaque daayira te tamit association yi tamit euh, fédération Soxna Jaare yooyu yëpp euh, taxaw nañ fi ba expliqué nañ ko sax ba def posé nañ ay question et tout tamit bëggoon leen expliquer euh, université Touba bi nan la juddoo nan la nan la ko suñ maam moo collaboration ak ñaari université yu nekk Italie mooy université Napoli bi ak université Venezia bi tamit doon leen expliquer nan lañ koy sentir suñu biir xol yi lan moo tax ñu koy dundal ak lu tax chaque année ñuy persévérer di toog fii nii chaque année di ko di dundal jour bii nii tamit nag euh, doon leen expliquer suñu diine tamit ci xidma. salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu wér a ñu ngi leen di delloo ziar bu soxna si. tur bi naka la. Euh, Ousseynou si la laa tudd. fan nga jógee. maa ngi jógee dëkk Médane nag mais daayira Mariano commencé ak fédération du Safar. bokk ci coordonnement rabitatu wasilatu rubo macha allah ñoo bëggoon a laaj tey nan nga gisee màggal bi ci wàllum organisation yi xéewal yi berne yi ak tout waaw màggal gi de moom xam naa ren moom ni ma ko yaakaaroon ak ni mu demee moom mbirum sëñ Touba ci feeñ bés ndax ñi dem Sénégal xam nga mois d'août moom bu ci tollee ñu ci bari genn wàll gi ñu dem Sénégal waaye sëñ Touba daal lim ñu defal nan ko ko santee ndax man jàppoon naa ne moom du mel nii. ndax li fi dajee ci mbooloo tey moom jàppoon naa ne desuñu sax fii ci réew mi bay bay kii waaye nag mbir mbirum sëñ Tuubaa moom mooy mooy mooy feeñaat yi rek ndax wax dëgg yàlla mbooloo mu toll nii ak ak organisation bu mel nii moom wallaahi xasim kawe na njort man de kawe na sama njort man tey jàpp naa ne moom incha allah bi day gën a jëm kanam rek ndax ndax niñ ko waajalee noonu lañ ko indee fii muy prestation bi nga xamante nii kuréel 2 bu Milan ñoo ko tàmbali kuréel fédération bi nga xam ne mooy kuréel sélection bu rabitate bi teg tegu ci ak kuréel gi nga xam ne mooy kuréel 1 bu Milan noonu lañ ko taxawale noonu lañ ko waajale woon te wax dëgg yàlla am nañ ci lu kawe suñ njort ndax moom liggéey bi sëñ Tuubaa moom ni ñu ko waxee rek loo waajal rek indi ko noonu lañ ko waajale ci répétition yi te noonu lañ ko waajale fii ci prestation yi am nañ ci daal lu kawe suñ njort wax dëgg yàlla macha allah jërëjëf bi ci kàddu asalaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar tur bi naka la. Moustapha Gueye. waaleykum salaam ñu ngi lay delloo bi. fan nga jógee. fan nga jógee. maa ngi jógee Monza daayira Nour Daara ni Touba Monza. ci ban commission nga bokk. maa ngi bokk ci commission accoglienza. tey de ñoo bëggoon a laaj nan ngeen organiser bis bi ci wàllum accoglienza bi nan ngeen organiser bis bi ci wàllum accoglienza bi. waaw euh, ci wàllu accoglienza. daanaka day day day am solo buñ bu ñu ko indee ci liggéey bu toll ni màggal gi nga xam ni da ngay am ay gan yoo xam ni bokk ñoo ñoom ay waaso maanaam euh, du ñu du ñu ay doomi sénégalais du ñu ay murit waaye rek doomi réew mi lañ te comme màggal gi moom dafa woote ku tedd ki dani na nga bégal sa njaboot bégal say dëkkandoo bégal waa waa dëkk bi te ñoom ñu bokk ñoom dëkk bi kon jaadu na bu ñuy màggal ñoom ñu ñëw fekk si ñu ñu am fu ñu leen fu ñu leen kii loo xam dana méngoo ak seen i aada ak seen i cosaan berndeel leen fi loolu moo waral ñu organiser aménager fii su ko defee bu waa dëkk bi ñëwee ak ñi nga xam ni aussi autorités yi la ñu représenté autorités sénégalais yi nekk ci dëkk bi buñ ñëwee ñu mën leen fee dalal berndeel leen ci magal bi. lan ngeen préparé woon nag pour gan yi tey. waaw li ñu préparé woon bokk na ci li nga xam ni moom la waa approvisionnement waajaloon ci ndekki yi. maanaam muy muy muy laax yi muy muy muy euh, brioche yi muy café gi ak meew mi ak yooyu yëpp ci wàllu ndekki yi euh, bi ñu demee ba añ jot aussi dañu ko tey ren dañoo changé un peu doctrine bi parce que dañoo wax ni ñun ni nga xam ni noonu la ñuy añee ci suñu kër yi ak ci bërëb bi maanaam tibb bool yi teg ko nit ñi bokk ko noonu lañ leen organiser aussi ñoom fii pour ñu xam aussi ñun li ñuy dund parce que tey boo leen indiwoon woon leen ay plat ñoom seen kër loolu lañ fay dund donc li nga xam ne ñun moom la ñuy dund ci màggal gi ñu bëggoon ñoom ñu séddoo koog ñoom tuuti ñoom ñu xam lu mu doon rawatina li nga xam ne wax nañ leen ko ci bis donc loolu bokk na ci aussi li ngeen mujjee gis muy dégustation bi nga xam ni def nañ ko fii léegi avant ñuy def présentation yi muy ay neem ay euh, spiedini xaw ma brochette lañ koy wax xaw ma ak euh, am na aussi ay ay ñu koy waxee sax euh, ay feuilles yoo xam ni dañ ci def euh, verdure ba pare tëj ko def ci ay euh, ay sauce extra tegal leen ko rawatina jus de fruits yi nga xam ni mooy jus de fruits locaux yi bokk ci bisaab buy ak jinjeer yooyu yëpp ñu ñu tegal leen ko bernde la daal au complet pour xamal leen nag lan moo waral bis bi lan ngeen waajal gis nañ ay brochures yi ak exposition yi waaw bis bi Euh, kuy murit rek xam nga ni ndigalal sëñ bi lañuy yeesal ci lañuy at mu ne at atum ren bi tombeek cent yi yi nga xam ni ci la sëñ bi wàccoon ñu di ko di ko di ko di ko di ko di def mémorial bi mu dëppoo ak màggal gi ni ñu ko waxee ci taarix euh, xamal nañ leen ko suñu xale yi nga xam ni fii lañ juddoo màggee fii jàngee ci réew mi ñoom aussi te namp li nga xam ne mooy seen culture def benn exposé boo xam ni dañ ko def ci langu réew mi ko defee présenté ko mooy li nga xam ni moom la xale yi doon def fii léegi présenté ko nasaraan donc loolu mooy li nga xam ni moom lañ leen indil comme innovation ci màggalu ren gi mais jàpp naa ni loolu am na solo parce que teewlu nañ ko gis nañ ci ñoom ak dal ak déglu teewlu nañ ko bu baax a baax. ok jërëjëf macha allah bu ñoo ngi leen di remercier yéen tamit ci liggéey bu rafet bii ngeen di def di leen ñaanal suñ borom taxawu leen yàlla na ngeen doon ay mag magi lislaam magi murit saadix ndax liggéey bii ñun seen i waajur de bu ñu wuutoo yéen a koy yore kon ñi ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ak dëgg-dëggi taalibe ba ngeen mën a aawu seen waajur yi ci liggéey bi jërë ngeen jëf yéen ci loola fan nga jóge man fii nii air ba laa dëkk ban commission nga bokk approvisionnement dañ laa bëggoon a laaj tey nan nga gisee bis bi daal ci wàllum organisation approvisionnement bi. no tey moom macha allah sono sono solo andate avanti rispetto all'anno scorso vedo che c'è molta organizzazione quest'anno moom sono molto organizzate moom macha allah. salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar tur bi naka la. Pape Thioub. foo jugee. man lekk. ban commission nga bokk. approvisionnement. dañ laa bëggoon a laaj tey nan nga gisee màggal bi ci wàllum organisation approvisionnement bi. màggal ji moom doy na waar rafet na neex na suñ mbokk murit yi moom ngi daan seen doole di liggéeyal sëñ bi macha allah. tey nag nan ngeen organiser liggéey bi. organisation bi moom c'est parfait ñoo ngi gis nit ñi moom ñoo ngi en l'aise ñoo ngi li ñoo ngi lekk naan nañ ba suur. jaajëf sëñ bi ñoo ngi lay remercier bu baax. salaamaaleykum soxna si tur bi naka la. Ndéla. foo jóge Ndéla. Euh, Molteeno. bandaay daayira nga bokk. daara Merona. ban commission nga bokk tey. maa ngi ci hygiène bi. dama laa bëggoon laaj tey nan nga gisee màggal bi daal ci wàllum organisation bi hygiène bi ak lépp daal. ah màggal gaa ngi noonu daal macha allah Costano moom ci seen peñaati ku ne def na sa part instant bi ñëpp kay kenn lamentaare aussi ñaan nañu ko fekkee day déwénee déwén rek. amiin ba jàpp nga si liggéey bi bu baax rek. ah maa ngi ci maa jéem naa ko de def naa li mu mën. jërëjëf macha allah. salaamaaleykum soxna si ñoo ngi lay ziar tur bi naka la. Ndeye Yaram Fall. foo jugee. lekku. tey yow est-ce bokk nga ci benn daayira. non non. mais pourquoi bokkoo ci benn daayira. Euh, perché non mi impegno tanto moo tax. tey léegi ma bokk. incha nan nga gisee liggéey bi nag tey ci wàllum organisation bi nanga nga gisee màggal bi daal. Allora era abbastanza organizzata mom, però io sono arrivata tardi quindi non so la mattina com'è andata e niente, però è andato bene. Sì. ok jërëjëf waay saana si. salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar bi naka la. ñu ngi leen delloo ziar tur bi Mouhamed Fall la. Mouhamed tey foo jógee. maa ngi jógee ba Milan. yow da ngaa bokk ci benn waaw bokk naa ci ndawi Rabitatu ji wax dëgg yàlla macha allah tamit liggéey bi moom lañ bëgg daal fi dañ fi ñoo dañoo bëgg fi nga xamante si ne fi la ko mag ñi kii dañ koo bëgg a yóbbu ca kaw ñu ci sàkku ñëpp rek ñu ànd ci ak ñun bu baax a baax. dañ laa bëggoon a laaj tey nan nga gisee màggal bi ci wàllum organisation bi bernde yi ak tout ça. waaw macha allah moom màggal gi neex na lool ndax bi ñëwee dañoo dem ca mbirum faaleen ma rek dem ca ndekki am na solo lool wax dëgg yàlla tamit macha allah soññi ñëpp rek ñu gën a jàpp ci liggéey bi te xam ne am na loo xam ne moom bu ci ndaw ñi jàppul rek du sotti quoi euh, ndaw ñi sama xamuñu sama classe bi ñëpp rek ñu ànd ak mag ñi lépp loo xam ne koy laaj ci màggal gi ñu joxe ko te xam ne loolu dong mooy doxal liggéey bi bu kenn ku ne tegoo sa kër wala indiwoo sa addiya dara du jog donc kon daal dañuy laaj ñëpp dañ ci dañ ci soññi ñëpp daal ñu jàpp ci bu baax a baax ndax liggéey bi loolu rek moo koy moo koy jagal wax dëgg yàlla waaw donc lan nga yaakaar ni loolu lañ war a mën a def pour màggal bi gën a jaar yoon li nga xamante ne ñu ngi koy laaj ci addiya ñu joxe ko lépp loo xam dañ koy laaj xeebuñu dara lépp lu waay nga def ko bu kenn ku ne defee noonu rek lépp dina jag bu soobee yàlla ñaan année bu ñëw rek a dàq nga xamante ne moom moo wees loolu la ñuy ñaan di ñaan suñu borom yàgg ñu fi ta li nga xam ne moom bu déwénee yàlla na gën a yokk te ñi ko fekk ren ñëpp yàlla nañu ko fekk ci barke borom Touba macha allah sëñ bi ñoo allah salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar tur bi naka la waaw tur bi mi ngi nekk Cheikh Mariamou Ndiaye ñuy dellu ziar fan nga jugee. man maa ngi jugee Ojoonu. Ojoonu ah province di lekk. ban daayira nga bokk. non man may ngi bokk daayira Serigne mu Mariamou bu Serigne Darou Hassane Ndiaye bu Oljinaat. tey ban commission nga bokk. ah bokk ma nag ci benn commission. wax dëgg yàlla. waaw ah, lu waral loolu nag. ah ñàkk xam rek. waaw ah, ñàkk xam rek. tey noo gisee màggal bi. waaw màggal gi neex na neex na chaque at day yokku chaque chaque at dañuy gën a gis njëriñ li. njëriñu Serigne Touba li mu defal parce que waxu ne kaay leen màggal ma dafa wax kaay leen ngeen sattale ma borom bi subhanahu wa taala kon nag bu bu ko ñeen ñi gisee ne dañoo war dañuy dañ bu ko ñeen màggal Serigne Touba màggaluñ sant borom bi subhanahu wa taala loolu la rek waaw. lan nga yaakaar ni commission bi commission yi lan la ñu war a mën a def pour euh, indi nit ñi daal comme yow nga xam te ni si ñu si liggéey bi lan nga yaakaar ni loolu la ñu war a mën a changer. waa ñëw si nit ñi rek waxtaan ak ñoom wax leen ni sart yi loolu kase ku bëgg a bokk mu bokk ku xam si ne mënu ko nag waaw mu toog loolu kese la. ok sëñ bi ñoo ngi lay remercier bu baax jaajëf waay. salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar tur bi naka la. Abdoulaye Thiam la kuréel de di safar. fan nga jógee. Abdoulaye Thiam kuréel de di safar maa ngi jógee Lekko. li la bëggoon a laaj tey nan nga gisee bis bi ci wàllum organisation bi et tout ça. waaw bi ñu sant yàlla junit yoonte bi di sant Serigne Touba bu baax a baax di ñaan yàlla. lépp loo xamante ne ñaan nañ ko ci bis bi rek yal nañu ko suñu boom defal di sant yàlla baax a baax na biñ ko fekkee sa ñaan yàlla yàgg koo fekkee di sant baax a baax baax tamit lépp li nga xamante ne daal euh, def nañ ko fi euh, yàlla ko suñu borom ful sa mu nekk ay xéwal loolu loo ci bàkki suñ Tuubaa ci wàllum organisation bi na wax dëgg yàlla lépp jaar na yoon ndax ko xool euh, bis bi ak mbooloo mi ni ñu wuysee nga xam ne wax dëgg yàlla suñ Tuubaa rek moom moo man lii ah wax dëgg yàlla ci organisation moom lépp loo xamante ne daal waajaloon nañ ko mel na daal def nañ ko ba def ko lu kawee njott di ñaan yàlla daal lépp loo xamante ni daal euh, def nañ ko fi yàlla na ko suñu borom euh, ful te def ko ay xéewal di ñaan yàlla bis bi tamit ñu yàgg koo teewee. ci wàllum kuréel bi nag nan ngeen euh, organiser wu nan ngeen waajal bis bi. waaw wàllum kuréel nag wax dëgg yàlla waaj nañ ko xëy na nag ren jii moom xaw naa am tuuti sooxe sooxe ndax li mu tombeek feedi moo tax daanaka murid bari wax dëgg yàlla ñu ngi koy passé ci Touba. di la ñoom ñooñ tamit yàlla neen yàlla defal jàmm ba bu déwénee tamit képp ku amoon yéene rek nga man koo teewe ci bàkki Sëriñ Tuubaa waaye nag wax dëgg yàlla ñu fi nekk tamit matal nañ lépp daal waaw ndax kuréel yi ànd nañ wax dëgg yàlla euh, def ko benn kuréel dundal bis bi comme ñu ko daan defee mel nañu daal mbooloo i manqué na waaye kuréel gi moom mel nañu nañ ko daan amale amale nañ ko waaw loolu lépp daal ñu koy sant suñu borom baax a baax a baax ok sëñ bi ñoo ngi lay bu baax ci kàddu yi baax tamit di leen ñaanal yéen tamit suñu borom euh, yokku leen sa defal leen xéwal ba bu déwénee tamit looy man ren rek ñin man lu ko ëpp ci bàkki yàlla yaata yàlla euh, yaatal liggéey bi ba bu déwénee daal lépp loon am benn yàlla nañu ko am ay ci bàkki Serigne to di leen jaajëfal baax a baax baax